ànd ak sëñ Momar Diop mi nga xamante ne saa ne day ñëw ci bunt bi nga xamante ne mooy bunt bi am solo ci xamle sa jànkat ni ko sëñ Mouhamed Lamine ngay waxee sànq rek magu jànkat yi bari nañ waaye kenn ku ci ne delloosiwaat ko jàngataat ko xoolaat pas pas pas roy pas pas séef bi loolu yaakaar naa ne lu am solo la kon sëñ Momar tey ñu laaj rek ban jànkat nga ñu indil ak jàngat yi ci am bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Mballo jërëjëf ñu ngi lay nuyu baax ñu la ziar di ziar mboole ñuy bokk plateau bi yëpp eh, sëñ Bousso waxtaan am na solo lool sëñ Mouhamadou Lamine ni ñu cook tam matale sëñ Mouhamadou Lamine daanaka tëjil na bunt bi <laughs> ndax tey dañuy waxtaanee kenn ci jànkat koo xam ni taxawaay bu am solo la am ci yoonu murit muy ku ñuy wax sëriñ Alioune Fall mu nekk kenn ci jànkat koo xam ni taxawaay bu am solo la am ci yoonu murit taxawaay bu am solo la am ci xaside yi kon nag dañuy ànd ak waa régie ñu tegal ñu tuuti ci am njàngam boo ko defee ñu delsiwaat wax lenn ci ay jaar-jaaram كلامي لمن سسى اليما كما سسى الشيطان والجهل والخماي كما سعى الشيطان والجهل والخمام ما الله وما الخاسن خلقه أما ما في يد الماخ التي قد مترما من النار الهتام خرس من لما بربي لا خدام من عنده الأسماء نويت بمتي منتان نواله وإني بما الاختير خطأ إياله نساكات مغننا سخت مثاله ووجاءني الدنيا وأخرى جماله ahmaduna rahmatuna hamiduna himmatuna mahmuduna baratuna wajudu musridi amin waaw kon jërëjëf waa régie comme ñoo ko gisandoo élément mi ngi noonu nga xam si Aliou Fall moom bari na lool ñu ko xam ci jamono sëñ Fall la daan jàng ba jamono si Ablaat daan na jàng mu nekk koo xamante ni bii yàlla dafa dogal mu gane àdduna diggante mille huit cent mille neuf cent huit ba mille neuf cent diis diggante boobu daal lañ xibaar ne ci la ci la gane àdduna wàcc liggéey en mille neuf cent quatre-vingt plus précisément le vingt-neuf novembre kon nga xam ne daanaka juróom-ñaar fukki at yu teg tuuti euh, la def ci kaw suuf waaye dundam gépp nag doon jariñ muy lu am solo loo xam ne ku nekk war na koy ñaan sum borom mu nekk koo xam ni waajuram bu góor mi ngi tudd Serigne Mor Ngone Fall nga xam ni bi dafa nekk koo xam ne mo sëñ moon góoneem ci boppam dafa nekk koo xam ne maanaam Serigne ci boppam moo ko dafa nekkoon taali boo xam ne dafa jokk ci maam Cheikh Ibra li jiitu maam Cheikh Ibra daan ko yónni lu bari ci Serigne Touba ndax melokaana bu sell ak comportement wam ndax da xool ku mel ni Cheikh Ibra dal gim dal ak bëgg gim bëgg Serigne Touba fam ko teg bu ñëwee ba jël nit di ko yónni Serigne Touba kon koo am na melokaan kon kon mu ko daa yónni Serigne Touba lu bari sëñ bu mag bi soppoon sëñ Mor Ngone bàyyi sëñ Alioune Fall ci jikkoom ba mu gi moo taxoon sopp boo ko sëñ Tuubaa sopp daa mujj sëñ Mor Ngone ne Cheikh Ibra ndax am naa ndigalal far féete sëñ bi mu mujj féete sëñ mag bi jébbalu ci moom far na ci moom xam ni sëñ Tuubaa nekkee Mauritanie Cheikh Ibra yóbbu na ko fii sen Sénégal mu dem ba Mauritanie ci yonent boo xamante bi eh, dem na ci jaam ñëwtu jaam lépp pas-pas def ko waajuram jigéen nag tudd Soxna Kumba Fall moom tamit di koo xamante ni bii lu yiw ak lu sell rek lañu xam ci moom Cheikh Ali nekk koo xamante ni bii mi ngi gën a àdduna ci dëkk bu tudd Daaru Fall nag di benn dëkk boo xam mi ngi nekk boor Kébémer waaye tamit mi ngi màggee ci beneen dëkk bu tudd Daaru Fall waaye bii Daaru paafa muy benn dëkk boo xam mi ngi nekk ci booru Guinguinéo nee nañ digganteem ak Guinguinéo 15 kilomètres ci lay toll fa la nekkoon nekkoo fa ak baayam di fa dund dund gu sell waaye tam mu doon koo xam ne su mboroom dénkoon na ko njaboot mu am ñetti bant yu jigéen ak benn bant bu góor kenn góor gi nag di sëriñ Fallou Fall ñu koy ziare ndax bokk na ci ñu jàppandal lool ci émission bi di ziare si Moustapha Seck di ziare wala sëñ Cheikh Gaynde Fatma euh, Fall wax dëgg dañoo jàpp ci liggéey bi mu nekk koo xam ne kon ñu ngi ko tuddee sëriñ Aline Bousso daan nañ koy woowee sax sëriñ Aline Bousso sëriñ Aline Bousso moomu ak ku tudd sëñ Omar Bousso sëñ Touba moo leen boole ñoom ñaar jox leen sëriñ Mor Ngoné Bousso bàyyi sëriñ Abdou bàyyi sëriñ Alioune Fall mu jàngal di alxuraan yar leen kenn ki nag muy sëriñ Alioune Bousso moom tuddee sëriñ Alioune Fall moo tax ñu ko daan woowee sëriñ Alioune Bousso Fall mu nekk loo xam lu mat bàyyi xel la waaye nag sëriñ Alioune Fall nekkoon koo xam ni dafa am digganteem ak ñetti kilifa yu mag yoo xam ne comme jaar ci ñoom am sa ngërëm rek doy na sëkk wàccuwaay muy li si jiit digganteem ak baayam ndax baayam sëñ Ngor sëñ Mor Ngoone wax naa leneen Serigne da ko gërëm mu nekk cheikh kon Serigne Aliou Fall kon ab cheikh la ndax baayam cheikh la mu nekk koo xam dafa tarbiyu baay ji baay ji moo ko dal alxuraan jàngal ko jàngal ko xasida ba pare toq ko ci am njàng te ñu bari xamuñu Serigne Aliou dafa njëkkee ci njàngum aw jaar na ci jàng lu yàgg ginnaaw gi la ko bàyyi di jàng jàng war loolu moom defe naa ni xam naa ñàkk bi ñàkk bànd bu bu bu ci loolu moo tax xamuñu ko woon waaye ci la njëkkee kéem ni nga ko waxee ci sëriñ Moustapha Diop nga xam ne fan yee doon nañ ko waxtaanee nga xam sëriñ ci boppam nekk koo xam ne bii dafa tarbi yu baayam lu mu am ci xaside yi jox baayam daan ko bayal daan ko toppatoo ba xëy am ngërëmal baayam xam ne baayam da ko fekk muy bay ci tool yi mu damm gopp bi ne ko maag yow seqatul liggéey bi si tey gërëm naa la moom loolu rek doy na gërëm waaye beneen gërëm bi gën a fooreeti nag mooy digganteem ak Serigne Fallou ndax Serigne Aliou nee naa sànq ab seex la woon yàlla dafa dogal mu jógee dëkk bii di Daaru Faal Paafa demoon Dakar ci benn taalibeem boo xam ne doon tudd taalibe bi sàkk woon sëñ Alioune Fall tuddal ko gone gi ba mu fa demee tudd ko ba noppi mu yëg ni sëriñ Fall daf fee ñëw nganale mu ne kon naa fa jaar ziare ji ba mu jaaree ca nganale bi xam naa gis sëñ bi xaw a jafe mu ne kon naa yëkkati ay bëyit rek su ma gisee baax na su ma gisul it sama yéene doon doon doon yëkkati bi naka la tàmbali yëkkati rek sëñ Fall ci boppam yëg ni am na am na am na lu rax ci ngan gi. ci la moom tàmbalee teewlu di ko teewlu muy jàng di ko teewlu muy jàng di ko teewlu muy jàng ba ci mu ne woo leen ma ko ba mu ñëw mu ne ko noo tudd mu ne ko man de bu Moussa Fall lañ ma woowee kuy sa baay mu ne ko Serigne Mor Ngone Fall kuy sa waajuru jigéen soxna Kumba Fall mu ne ko sa njàng mii ngay ñaam ndakaaru gii de benn dëkk rek lay yeeyoo muy Touba damaa bëggoon nga bàyyi lépp loo jàpp ñëw Touba di ma jàngal boo ko defee naa la duy ba nga fees dell roxo sa ba nga niin <laughs> noonu la ko sëñ Fall sëñ Fall la waxee noonee la demee ci baam wax sëñ Mor Ngóone sëñ Mor Ngóone bi ne ko bataaxal mu daal di feeñ si Touba bi mu ñëwee Touba gii itam nga xam ne loolu kese moo fi indi soxlaatul am xëy bayatul lijjantiwul boppam lijjantitul dara féetewu sëñ Fallou rek nga xam ne bi mu fi ñëwee fii Touba ndeysaan sëñ Fallou ci xam bi mu xam ne rafet ak xam mbokk daal di koy boole mbokkam mi nga xam ne rak magam lañ ko tuddee muy sëñ Omar euh, Bousso la ko jox mu utoo ko gédde fii benn néeg bu fay ne xam fan la laan nekk saa yu xëyee ñoo jàng sëñ Fallou bu ngoo mu ñibbi di ko def ba jimi jamono sëñ Omar Bousso bi ñu tàmbalee dagg parcelle yi ñu ko dagg sëñ Aliou Fall parcelle mooy këram gii tey nekk fii ci Guédé xam ni mooy këru njabootam bi nekk sëñ Aliou nekk koo xam ne kon liggéey moo doonoon xëy suba di jàng jàngal sëñ Fallou ba ngoon jot loolu nag moo am ci loo xam ni doy na sëkk titre muy am na bés boo xamante ni bii yaram bi daa xawul sutanti yàlla dogal benn taalibe bu nekk Côte d'Ivoire jëndal ko magnétophone xam naa may magnétophone euh, waa waa kuréel gii taw duñ ko xam hmm. ndax jumtuwaay la woon boo xam ne maa appareil la woon boo xam ne dañ ci daa teg kaset mu lay génneel son ko koy mën a déglu waaye tam nga amoon possibilité di enregistrer à partir du magnétophone nga xam ne moom bi mu njëkkee ñëw benn bés jàng enregistré ay cassette yu bari bi mu ko tegaatee da koy yéem ndax boobu enregistrement dafa nekk lu bees bës nag yaram yi xaw a sundante ñëwee jàngul muy teg cassette rek cassette bu teg bu jàngee ba jeex muy indi benn cassette ba ngoon jot mu ñëw tàggu sëñ Fallou ne ko maa ngay yeewi ko mu ne ko xanaa sëñ Alioune tey da jàngul mu ne ko man ne Mbàkke tey damaa ñëw yaram yi sutante mm. waaye it ñu ma jumtuwaay bi appareil bi maanaam mu doon loo xam ne boo jàngee ba noppi soo soo paree dala koy nettaliwaat mu yéem ma loolu ma ko doon tegaat di ko xool mu ne ko noonu la demee kay noonu la demee ndax booy jàng njàng bi daf may romb fii dem arasa nga si soo bu tey njàng bi daf maa rombul dem romb ma delsi moo tax xam ne jàngoo loolu tolluwaay bu kawe la boo xam ni wane na ni kon ndekk sëñ Aliou Fall moom ci bool loolu la koy yéemaat ndax xamutoon ni boobu maqaama àgg na fi waaye li gën a yéemewaat mooy bi ñëwee ba nga xam sañ Fall wóor na ko ni bis tey ji suñu borom dana ñëw ak ndogalam day nañ ma wol sëñ Aliou Fall ba mu ñëw mu ne ko feete ma soow sëñ Aliou Fall féete ko soow di jàng di jàng mu ne sëñ Fall wujjee suñu borom ku tan sëñ Fall ñëw bay wuy si ne woo ma diw loo ko ko xool xam ni kon wàccuwaay bu mat sëkk la fa suñu borom loolu nag ngërëm la boo xam ne ngërëm du ko du ko du ko rombati fonkoon na sëñ Fallou fonk boo xam ne bii li muy doon doon seex nga xam ne moom baayam am na juróom-ñaari bant waaye moom moo ci xawoon ëpp wàcce waay ci ay banti baayam li ko sabab mooy moom dafa dégg déggaloon sëñ Fallou ni ñi sopp ko nga déggal gi mu dégg sëñ Fallou ak ni nga ko nangulee waaye itam nekkoon ku fonk xasee nit ki fonk ko ndax xaside yi nekkoon tam koo xam dafa njëgee ndigal tam jëfee nit ñi tam fonk ko ngir jëfee ndigal boobee moo tax ba màggalu Tuubaa nga xam ne màggal bu jotaan ngay di ab seex nga xam ne kër ga ay téeméeri téeméeri gan dañ fay ñëw teewul ndigal bi ko sëñ Fall jox bu xëy loo lay def day xëy jàng bàyyi fa gan yi batale lépp dem toog di jàng jàngam nam daa def weesuwul gan bu fa ñëw bëgg koo jox àddi wala bëgg koo siyaar da ñëw ba kër bii ba ci jumaa ji na fa la doon jàngee fekk ko fa bu jàngee tuuti arrêté nit ñi siyaar ko mu continuer loolu sax moo taxoon mu daan jàng yenn xasida yu gàtt yi yu mel ni ay salaa yu fadlillaahi yu mel ni bismillaahi illazi quraan xat nasala yu mel ni yaa mukarrama yaa xayra defi ak yeneen ak yeneen yu demee noonu nga xam bu jàngaan tuuti dagg njàng mi waxtaan ak ñenn ci mbokk yi teg ñoom digal leen daal di wéyal am njàngam ba ngoon jëm soog a deew këram kon loolu na ko wéyalee digganteem ak ki nga xam ne moo di sëriñ Fallou waaye tamit Serigne Fallou làqoo en 1968 Serigne dafa ne la nga doon defal Serigne Fallou kaay di ma ko defal may xam nga dañ nee naa bi ñu jàng sëñ faal si jumaa la daan jàngee waaye muy jàng si ablaan ci këram gii la ko daan jàngalee chaque chaque chaque suba mu xëy fa di jàng ba ngoon fu sëñ ab mës a dem tournée si Sénégal da ko yóbbaale xibaar nañ sax ne am na benn tournée bu mës dem benn dëkk ñu fàtte sëñ Aliou Fall nga xam bi mu ñëwee ba toog dég déglu am njàng daa laaj ana sëñ Aliou Fall sëñ Moussa Bassirou ne ko daa mel ne ma nga Tuubaa mu ne leen ma ko xam sëñ Moustapha Bassirou taaw sëñ Bassirou moomu ji taal oto dem jël sëñ Aliou Fall indiwaatoo ko xam sëñ Abdou Lahad daa mujjoon ci ut kenn ne ko kii moom dee ma ko toppatool fu mu dem ci Sénégal fexeel ba dafa am néeg bu baax na lekk lu baax na dallu bu baax ndax la may liggéeyal dafa maa ñor kon am na ngërëmal baayam am na ngërëmal sëñ Fàllu am ngërëmal euh, sëñ Abdou Lahad waaye tam am nga ngërëmal xasaay bi léegi ñu dugg benn paragraphe bu ndaw nga xam ne mooy avant dernier euh, point bi muy sëñ Aline ci boppam léegi am njànginam xam nga moom soo déggee baatam dafa spécial moom ni baatam mel moom ku ko dégg di nga xam ni baat bii moom wute na ak yenn ci ay baatam ndax sew gim sew jotale gim jotale waaye am gim am fond ndax si ablaat cun defe naa ni yi defe naa ñeent la ténor la contre ténor bariton ak baas defe naa hmm. xam ni moom dañuy wax ni baatam xamuñu dañ ko tënk naan baat bu senj bu digg doom bu xëdd hmm. waaye moom dañ naan baatam dafa senj ba pare teg ci torop hmm. faw nga teg ci torop bi ndax boo nee senj rek day yem mais ren baatam dafa senj trop waaye ci am njàngam sëñ euh, mbaalo mu am ci lu yéeme muy xam nga boo xoolee am njàng riim la xam nga jàng mu ñu koy misaal ci kër dañ naan rez-de-chaussée la premier étage ak deuxième étage maanaam mën nañ ne riim mooy rez-de-chaussée mën na ne xaaj ji mooy premier étage mën na ne samp mooy deuxième étage seen alifaan dañu def lu kenn dul def mooy terrain defe naa li wax jànkat yi xam ne ko dana riim bësit ba caag wàcc ci suuf wàcc ci suufa suuf nga xam ni day ne ci souterrain bi di ne ci suuf ne ci suuf ba nga xam ni li koy jeexal benn dagg bu lay def rek mel ni onk daa di yéegaat saa su jugee rek day samp wala mu wala wala mu xaaj xaaj bu kawe sawur lii ka bil wa sunnati lati laa saana al muxtaar yaa faatixa raxim warul hudaa turan dawaaman wa kufani men na moom moo koy def jànkat yëpp nag particularité la boo xamante ni bii loolu moom kese lañ gis mu di ko def ci ñaari bëxru nag bëxru basit bi ak bi nga xam moom la jàng ci mawaahibu loolu moom lu yéeme la ci am njàngam waaye mu nekk koo xam ne ku mokkal la ndax li muy jàng xasida yëpp ci mokkal la ko jàng amu ci benn xasida koo xam ni da ko jàng te mokkalu ko kéem ni ko sëñ Cissé daan defee ni ko sëñ Mbaye daan defee ni ko sëñ Moussa na defee ak keneen ak keneen ak keneen ci biir jànkat yi mu nekk xam tam am na ñaari aptitude yu mu am yu raar ci am jànkat muy endurance xam nga koo xam ne chaque jour nga xëy jàng 9 heures ba saan chaque jour seen Lamine loolu <laughs> caaxaan may ko nit caaxaan may ko nit waaye am fontam boo xoolee tawil tey bu ñuy jàng tawil bi ñun ñi bu ñu defoon kuréel di jàng kenn ku ciy jàng xab ba mu jeex amul faw mu am foo noppaloo te panaa moom day jàng lépp ba mu jeex te di ko jàng ci xes dëggu mel ni mu xaddimaat nag ba mu jeex tàkk loolu tamit euh, lu lu yéeme lu doy waar la njàngam tam ñu gis ni jàng na ñeenti bëxëru yu bokkul waaye ñu xam ci juróomi daaj ndax tawil da ci am ñaari daaj benn mooy mel ni salaayu fadlilaahi bi beneen mooy bi nga xam dañ koo def mu mel ni daaju dëbb bi kon ñaaree la benn mu jàng ko ci beneen daaj mu jàng ko ci xasida jës bu beneen daaj mu jàng xasida maay bu ak basit bi nga xam ni booba tey ñu ngi koy leeral kon moom yooyu la am ci ay mélodie yoo xam ni moo la daan jàng kon nag ñu tëjee ci isu tarxee mi ko roy ndax sëñ Aline Fall boo dégg ñu ne ñi ngi jàngam jàngam ci wàllu kuréel isu tarxee la ko yàlla defal isu tarxee mi ngi njëkk a jàng njàng sëñ Aline Fall en 1992 tabaski 1992 boobu sëñ Saali moo fi nekkoon dañ ko njëkk a jàng jàng ko ci ñaari xasida urub naa chakarul les yi ak xattaaba xel yàlla ma la la ma la sàllama ñaar yëpp di xasida yoo xam ne ay nuuniya la moom lañ ko njëkk a jàng li ñu yéem ci jour boobu xam naa ñu nekkoon xale lool waaye fekk nañ ko teewle bi sëñ Saliou doon teewlu daf ñoo yéemoon daf ñoo sax yéemoon teewlu koo xam ne xam naa naka jekk saa yu jàng xasida day teewlu waaye bés boobu moom xam naa ne am na lu mu yëg ndax moom tam dafa bëggoon nam jàng te xam ko nag sëñ Saliou moo tax xam naa ne bëggoon naa jot sëñ Aline Fall waaye njëkk muy toox si jal gi fekk na si Aliou Fall làq waaye bu toll loolu mooy dana ko ne <laughs> kaay kaay di ma defal la nga naan defal sama mag yu baax yi. nga xam ne kon 1992 lañ ko njëkk jàng bi ñëwee ba 1993 tam def nañ ci liggéey bu mag a mag ci njiita sëñ Lamine Sey ak ci ku mel sëñ du Joxaane ak kenn ku tudd sëñ Ahmed Samb nekkoon Daara Thiès nekkoon tout tànk def nañ benn tournée nationale yoo xam ni mboolem Daara yi xam ne amoon nañ kuréel tout tànk dañoo fexoon ba def fa tournée ngir jàngal leen daal sëñ sëñ sëñ Alioune Fall loolu rek moo waraloon tournée boobu loolu kese ko waraloon nga xam dañ cee yokkaantu sax beneen signe ndax dañ ko njëkk systématisé en 1992 mais boobu riim la woon ak xaaj ak samp mais bi ñu demee ba 93 dañ cee yokkaat benn signe boo xam ni dafa dafa yombutoon siñ bi yàlla dogal na amer samp sëñ Assane mënoon ko trop <laughs> mënoon ko trop moo tax bi gars yi mission bi ñu boole ko ca mu wër tour du Sénégal ñu jàngal ko tuur tànk yi boobu tam fekk na iftaraxee dañoo waxoon sunum xel ni sëñ Saliou gën a daa am yërmande lool ci xale yi amaana njàng bu xale da koy neex te sëñ sëñ Alioune Fall tam ni baat bi bindoo xale bu ko roy day yomb kon loolu tam bokkoon na ci li nga xam moo moo ko def waaye tamit moom liggéey nañ ci moom liggéey boo xam ne xam naa ci kanam mën naa am kii ñëw ci euh, taarix bi muy daan nañ ci defa sax lu ñuy wax kuréel national tout tànk yi xam ne jël dëkk bi Kaolack jël fa ay nit jël euh, Tëngéej ay nit jël Dakar ay nit Ziguinchor ak feneen def ko kuréel gu mag boo xam ni daan nañ jàng spécialement daaj Sëñ Alioune Fall xam ne if jaar na ci waaye tamit bindee ba ci biir tam mhm. def nañ njàngu copie conforme nga xam ne mooy original xam ne def nañ ko ci basit bi def ko ci yeneen ak yeneen ci ay bëxru kon ci tënk mhm. loolu mooy li nga xam moom la ñu indiloon ci li nga xam ne mooy waxtaan bi jëm si Aliou Fall mhm. euh, mu nekk loo xam tam lu am solo la waaye peut-être ngeen jéggal ma dool ci lu am solo mooy 1996 tout tànk Touba liggéey na ci liggéey bu am solo ci njiital sëñ Cheikhouna Bousso àndoon ak sëriñ Xaanam Diop Nayeen maanaam daaj sëñ Aliou foom faal boo mooy tawil la ñoom ñoo ko liggéey def ko mu doon daaju debe ñu jàng ko ci ci xes de tawil yu am solo loolu tam liggéey la boo xam jaar nañ ci tey saraxee def ko. gën a yéeme nag mooy sëñ Aliou Fall nekkoon koo xam ni bii maanaam bi mu ñëwee bay wàcc liggéey diggante bu doy waar la dafa waajal boppam ci yu baree bare bare kon loolu xam naa ni dañu dugal élément bi suñ ko dégloo ba pare tàggatoo waale joxante. dig daje beneen yoon incha allah. ahmaduna rahmatuna hamiduna himmatuna mahmuduna baratuna wajudu musridi amin maanaam xaside yi lañ bëgg a wax rek fi muy yóbbu nit. ndax sëñ Aliou bi mu waree wàcc ab liggéey. suñ borom da ko koo xamaloon jaarale woon ko ci sëñ Fallou ndax sëñ Fallou am na si jaade gum ko joxoon koo xam ne nii. da koo waxoon ni ko bis boo demee ba toll ci waajtaay xam nga mag ñi nag moom seeni wax lépp ay ay làkk la dégg naa daal ba tollee ci ñetti fanam yi ko desee ci àdduna ci jaade googee génne na ko lal ko wax sama waajur wu jigéen ni ko dama bëggoon nga wool ma waa koñ bi ndax damay dem barab ne leen ku ma bëgg a gis daal na nga ñëw daal di woo maam Malick Fall moo ne woon ca barabu sëñ Issa Dieng ba moom ku siiwoon la bi mu fi jógee yàggewul noonu nijaay la ci sañ àll yu mu ni ko dama bëggoon barab yooyee boo demee nga soppi ndox ma ndax da ngeen am gan kooku ni ko yow de da ngaa mel ni ku dugg ci oto tëj bunt ba wàcce weer ba mu yëkkati tibbub tàndarma jox ko ni ko dénk naa la njaboot gi ba mu dellusiwaatee mu ni sama ndey dama bëggoon ngeen bale kër gi duy ndaa yi ak baaj bi ndax fan ñi da ngeen am gan lii moom tàggatoo na ko ba mu wootee julli ga nag ña mën a ñëw ñëw nañ ña mënta ñëw jotuñoo ñaw ba mu jullee ca si jaade googee ba noppi nee na daa teen di leen wun bunti asamaan yoo xam ne daa ubbeeku waaye xam nga nit dana toll foo xam ne la muy wax ah eh, ña ngi koy waxal mën nañ laa bañ a déggee noona waaw ba mu defee noona nag la waaj daal di fuddanu sol yéreem yu weex ni leen nag néeg bi may dugg bu ma fi kenn ubbi waaw tëju nag di jàng guddeeg bëccëg ba ca ñetteelu fan ba nag baat bi gën wàññeeku ba kenn déggatu ko biñ ko ubbee daal lañ ko fekk ci kaw mm, romb jaan ga la tëdd fop téere ya teg ci kawam noonu la wujjee suñ boroom kon moom ak demam waajaloon na ko boppam ahmaduna rahmatuna hamiduna himmatuna waaw comme ni ko seetaanee noonu ci commentaire bi nga xam moom la leen waa régi tegal noonu mooy faramfàcce ak di leeral sëñ Alioune Fall bi nga xamante ni bi ñëw na ba suñu borom war a dogal da ko soob nam ko yëgee ci yaramam ba digle ci digle yi nga xam li mu wax lépp ku ko xool xam dafa waajaloon boppam xam naa kon foofu la ñuy joxe suñ ba baalo bu ko defee ñu mën a jaar ci benn rubrique